ban euh, selaan bii nii nii fii nii. waaw maa maa ngi lay neefee. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. Ah, hectare bi yëpp dañ ko mën a doxo. 14000 ah, mètres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 da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant waaw man ci maajoor ak joor laa bëggoon a wax majoor ak joor tey dañoo jékki-jékki bindal ñu ne tey dafa jeex mais maajoor ak joor moom xanaa dina am suite maajoor ak joor bari na ay fóot torop torop torop jour bi joor njëkkee dem ci clinique bi ci Maysa bi nu duggee di ko sang bi mu demee noonu émail bu giri la def génn mu rouge loolu doy na waax torop ñu jógeeti si loolu ñun comprendre dara dañuy jékki-jékki rek indi ñu benn affaire ah joor dof na fi kenn wëru ko kenn seetu ko bam neex leen rek ñu jékki-jékki ni indiwaat la ñu joor maajoor taxaw fële di ko seet di ko xëccoo ak may sax ah yi fët yi sax mën nañ koo muñ waaye tey jii mu jékki-jékki rek jeex ah xanaa ñu bind ñu sax épisode ba jeex na boog épisode 2 dina ñëwaat. salaamaaleykum ñun dañu sonn si xalaat bi di jouer nañuy bind texte yi bind film bi ba mu egg ñu jox ko acteurs yi ñu jouer ko topp topp film bi. comme Golden Golden neex na trop Golden neex na trop am na sens li ñuy joué am na sens mais joué ba si yàgg rek indil ñu leneen lu bees nan la ñuy joué ndi euh, euh, naar ak papay maajoor bokk ndey ak baay parce que depuis le début mu ngi koy wax ni ko sama yaay sama papa la gënoon a nopp te ñoom dafa mel ni ñoom ñaar xam na woon histoire bi xamoon nañ histoire bi léegi ñu dem ba si yàgg mel ni ñun dañuy fàtte wala dañoo naax mais naaxuñu. jékki-jékki yaay joor ak yaay may sax ak naar ñoom ñëpp tamit bokkaat fële ndey ak baay nekk ay seex te dañoo waxoon ni papay maajoor ak naar ñoo bokk ndey te bokkuñu baay kii sant njaay ki sant jóob xanaa loolu dañ ko fay fàtte loolu ko koo fàtte asalaamaaleykum yaa lu xew TV na ngeen def nag namm naa leen ana waa kër ngeen a ngi ci jaam waaw kay waaw kay waaw kay leen yéen yéen a ngi ci jàmm waaye épisode maajoor ak joor bi neex na bi moom dama xol kontaan sedd na ci torop torop torop xam naa ne man waxoon naa ne rek photo yi rek moo leen di moo gindi ki joor xamoon naa ne photo yi ñooy gindi joor loolu moom leeroon na ndax joor jaaxle woon na waaye nag yaam moom ko kii kon naar moom lañ ko ne na toog ci café ba baax na ci moom na fa toog <laughs> naar daal dina xam ne euh, leptoo faytoo la dina ñaw loolu baax na ci moom torop waaye nag mën na war nañ koo dawalaat daal gën nit ñi gën cee kontaan di gën a mu gën a leer daal ni mu jeexee dafa gàtt daal ndax naar waroon naa xam ne moo mook joor ñoo bokk su xamoon ne yaay joor ak moom ay seex lañ dina neex waaye du ko xam asalaamaaleykum waa Xew TV ñu ngi leen di béggee di leen ziar di kontaan si yéen comme waa Sirima Joor ak moom dañ ci kontaan lool sawar di ci wax waaw man moom man la fan su ma yaayu joor comme ni ma koy faral di waxee waaw ah, Madior ak Dior moom fi teg seen tànk foofu la kontaan nañ ci waaw ah, Dior moom bi passé kontaan nañ ci Madior fekk bi ñu ko fekk ba fi mu nekk mais dafa waroon a toog dëggal boppam waaw ah, wax li nga xam ne moo nekk ci moom ndax moom ñépp xam nañ ni Madior la bëgg waaw c'est nag may sa moom aide gi mu ko aide moo ko bàyyi ci moom mais Madior la bëgg. waroon naa toog dëggal boppam waaw wax lu nekk ci moom waaw ñu ngi koy wax épisode bii di di épisode 52 mu toog dëggal boppam wax li nekk ci moom xamal may sa ni ko maajoor la bëgg waaw yéen nag waa Lu Xew TV ñu kontaan ci yéen bu baax ndax yéenay tax li ñu bëgg a wax ci série maajoor ak joor ñu koy mën di génnee waa kontaan nañ ci yéen bu bari di xew TV na ngeen def yéen si jàmm maa ngi lay nuyu wa Sénégal yëpp képp kuy seetaane eh, Dior major Madior maa ngi koy nuyu si 360 nag te man tamit nag saraxule la man sama olof leerul bu baax mais nu ma ko xamee Dior major Madior nag film bi neex na nu muy demee nag baax na et surtout yaay Maysa nag yaay Maysa moom de nit la ku xam dëgg la. ku wax dégg la waaw ku ko xam dégg yaa ko mën a wax dégg man ne loolu laa ci xalaat waaw soxna si moom dégg rek lay wax di san bu dee ko xamoo dégg du bàyyee joor nu ma nekkee léegi ndax moom tamit moo ko ne mu choisir bu dee ma jël la bëggu wala may sa la bëggu mu jox ko kook di san boo ko xamee loolu nag nit bu dégg laa moo ko mën a waxee loolu maa ngi lay nuyu waa Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah ziar naa leen maa ngi leen delloo ziar di leen sant di leen mbooloom jullit képp ki nga xam ne moom yaa ngi ñaan yàlla suñu borom démb ndimbal xam ne lu ci lu baax maa ngi lay gërëm sant démb noonu mission bi xam naa kontaan naa ci mission bi parce que joor dellu na ci loxo maajoor ma kontaan ci ma bëgg ci léegi nag xool leen li gën neex ngeen jox leen ko waaye dama ci kontaan ah, xam naa naar jóob de moom peles naar jóob peles de moom rëcc na lépp parce que dem na ba xalaat li nga xam ne bu dem ba dem doon tey du ko def yàlla suñu boroom lii lañu ñu netti yàlla suñu boroom moom du lor jaamam bu fekkee ba demee ba nar lor jaamam moom dina la lor ci kàttanam waaw loolu mooy problème bi mais déjà moom xamul woon déjà yaakaar naa mu ngi mérité xam quoi waaw jàpp jàppoon na xelam moo tolloo woon foofu rek ak bugg alal adun te alal adun jarul lool alal adun jarul lool nit bi nga doon ñoom indiwoo dara indaaloo dara yaa ngi dégg mais booy delloo doo delloo dara xanaa lu weex li rek ay delloo waaw loolu la ko demee mais kontaan naa kii. waaw salaamaaleykum na ngeen def si yéen nekk yéen ci jàmm ça va eh man de si leen laay wax mais maa jooru joor bi daal moo ma jaaxal leen rek moo ma jaaxal li si fin. mais dafa des damay laaj ndax am égal wala fii lañ ko yemal su doon na am égal xëy na am sens mais su doon ne fii la yem moom wax dëgg yàlla amul sens dëgg la yàlla bëgg mu yéen def moom lépp neex na xool ni ñi bëgg nañ kontaan nañ waaw dañ leen a ñaara ngeen si kaw si kanam incha allah lu baax rek. asalaamaaleykum Lu Xew TV. maa ngi dellu di leen ziar man maam suufi euh, di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen jéggul di leen jéggal di rek comme la ma daan wax rek télé bi seen kii bi yàlla jëm kanam macha allah tabaarkalla la xew ci TV moom ca kaw ca kanam rek ci lu baax xam ne yàlla kawel ba ngeen yëg ko euh, li xew ci àdduna bi moom lépp loo soxla nga wax ko fi. gratuitement macha allah ñu jàllale sa xibaar ah, loolu moom xéewal la moom yal na leen yàlla fay waaw ah, di ñëw nag si émission Madior ak Dior doy na waar nag moo tax euh, ci jamono ji ñu nekk nii ah war nañoo tey de te li waral lu mel nii lépp góor ñi da gis ku la trompé daal di bañ. nga nekk di taxawaaloog say doom ëllëg xale yi dañoo gaaw a màgg ah ëllëg mën ngaa def juumte loolu yëpp da nañ ci yu bari nag yu bari macha allah waaye nag joor ak ka mu noonu mu naka la tudd ak yaama ak kee may sa ah doy na boo leen xoole ba xool ko même eh, ci maajoor man man gëm naa ne yaayu maajoor bokk naa ñee dara doy na waar daal waaye doy na waar trop trop macha allah moo tax tey àdduna tey daf cee baax tey dafa baax ci àdduna bu koo gis bala nga koy koy bëgg ah, waaye nag xol moom mooy tooñ borom waaye maajoor daal man gëmaguma ne na takk joor parce que joor ak kii ma bokkul maanaam tam mu takk que joor ak yaama ñoo bokk seen ñaari yaaya bokk ndey ak baay muy seexandoo ak yaayam hmm? day na waar daal intéressé wu na trop macha allah leen yàlla dafa jàmm ah, ah kon day na waar de baax na man daal gëm naa ni man ah, bala may gëm ni sëy bii dina mën am nag mais après man xam naa ne gëm naa ne am na lu koy yàqaat parce que am secret secret boo xam ne bu feeñee moom man gëmatuma sëy boobu am loolu daal ma doon sama xalaat nag maa ngi leen di ziar yéen ñëpp nag jéggulu nag ci wax ji bu baax a baax a baax mu ci dëng rek mën a asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu bu baax nag seen site bi macha allah ndax euh, permettre nañu tey luñ bëgg a wax ci internet bi YouTube rek dinañ mën a commentaire sans écriture man nag dama bëggoon euh, participer ci série Madior ak joor fin kii bi fin saison bi mm, Madior ak Dior am na commencement mais amul daaneel fin bi kenn xamul kenn comprendre tey au moins série bi avant muy jeex tey lépp waroon na feeñ dëgg bi yëpp génn. mais amul fin bi daal amul kii am amul commencement mais amul daaneel neexut fin bi daal neexut parce que ñu ah man dama part sama bopp gisuma ci sama bopp parce que la moyenne des choses sax maajoor ak joor waroon nañ mun a mari ci fin bi waroon nañoo mun a marier comprendre nga naat jóob xam que ni yaayu joor euh, kii wam la ay seex lañ puisque maman Banel xam na que ni yaayu joor ay seex lañ mais joor da ko waroon déggee daal ci làmmiñu kii nii nu mu tudd maman Balde série bi daal fin bi daal neexut fin bi daal neexut début bi nag moom kii woon na mais fin bi moom ah man dama part laa xam gisuma ci sama bopp daal parce que série am commencement am daaneel mais série bi moom na commencement mais amul fin. daan sama mbokk sama xarit yi sama soppere ci yoo leen nekk bàyyi nañ ci jàmm maa fi ñëwoon di wax ci Naar Diop. di ko encouragé ci liggéey bi mu liggéey yooyu mais tey jii moom ci joor laay ñëw parce que joor tamit moom tamit nekk na nit koo xam ne day sàmm kàddoom waaye tey tamit di affaire bi dinañu jaaxal trop nu mu koy fexe ba lijjanti ko parce que mi ngi nekkee damay sëyeen moom wax kee dana sëy ak moom ah moom lan moo koy génne ci affaire bi parce que jaaxle na mais tamit garmi tamit war naa ñëw. war naa ñëw théâtre bi am sance moom war naa ñëw théâtre bi am sens ñu xam moom yaa ma gën a xam mais théâtre bi daal day na waa neex na ins bi ba ëpp na billaahi mais bëgg naa leen bu baax a baax di jégalu lu baax a baax waa oh, asalaamaaleykum waa RD TV ci la ngeen nekk mbay nañ sa jàmm ah man dama wax ci Madior Dior gudd fi moom dafa am sens moom wax dëgg yàlla ah dañ fa war am nag war naa am àggali nag wax dëgg yàlla waruñoon def fin de à ah, suivre lañ waroon def ndax ñëpp ko suivre mu jeex nii yàggu dara dara sax mu jeex nii waru woon a jeex moom ndax ñu ko doon suivre moom bu baax a baax wara naa am àggali de man moom yàqante naa àggali bi wax dëgg yàlla. salaamaaleykum wa rahmatulah. man nag li mu bëggoon a wax ci série bi mooy que ni Madior ak joor bëggante nañu mais ñoom ñaar seen diggante mënul nekk parce que Yaama ak Dior ñoo bokk benn papa ba pare seen ñaar yaay di ay cheikh kon maajoor Yaama rek la mu mën a mujjal parce que ñoom ñaar xamante nañ ba pare mais mooma joor mën nañu bëggante sonn rek mais mënuñu sëy daal. salaamaaleykum wa rahmatulah nuyu naa leen ziar leen lu xew TV. di rafetlu bu baax seen liggéey te liggéey rafet na trop macha allah waaye man dama buggoon a wax ci benn série mu bu toujours Madior ak joor ma mel na gis naa ñu def épisode fin te ñoom yi ñu doon xaar ci ñoom lu bari mu mel ne wanewuñ ko ndaxte am na ay secret yoo xamante ne ni waroon na mën a feeñ te feeñut doonte dañu résumé mais dafa des daal des na des na lu bari fi ñu doon xaaree daal génnuñ fa ak ñun daal. mu mel ne moom seen théâtre bi des na des na trop sax ndax waroon na am secret yu bari yi waroon na mën a feeñ te feeñul encore tamit secret yi ni feeñee tamit mel na daal des na daal des na trop sax ok xeewal merci beaucoup